boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abone bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ci àdduna bi ngir ngeen mën am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo tu mbàkkeem sëriñ jaar ci Baye Aliou Diop ak nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi ak sëriñ Cheikh nekk ci kaw dëkk fii ci Touba jiite kuréel gii ñuy wax mu waxi bu naafiwu mu lënkale mbooleem ñiy taxawu bisu xasida bi nekk ci àdduna bi yëpp suñ Cheikh Dieng jiite kuréel yi nga xam ne ñoo nekk ci Touba moo nekk nii ci kaw ànd kook Serigne Mamadou Diop ak mboolem jëwriñ yi nga xam ne ñoom ngi di seen yu Saliou Guèye Serigne Saliou Fall jóge ba Njaareem waaye nag ñuy wax ci kaddu kuréel gi ñuy wax diwaanu ahlu xasaay muy kuréel gi nga xam ne moo lënkale mboolem ñi taxawu bisu xasida yi te nekk ci àdduna bi Baye Modou Mbaye mi ngi nii teew ci suba rek indi na fi xéewal bu yaatu jóge ba biir ay xéewal yoo xam ne ma nga jóge ca Serigne mu Lo moom soxna Mbène Ngabou moom borom Touba muy café bu yaatu suñ Modou Lo yónni ko ko mu indi ko ci ëhlu xasida bu Touba quartier Ndiéné ni mu ko baaxoo yóbbu ci bisi xasida yëpp suñ Modou di waxal boppam ne. ku ma ñaanal moom ñi ma ci mooy ëllu xasida yi loolu moom lu muy waxal boppam ak ñaan ñenn ñi mu ko yaakaare mooy ñiy dox ci xasida yi moo tax mu yónni mu koy mu koy faral di ko yónni ci bisu xasida yi nga xam ne ñi nga am ci àdduna bi yëpp waaye Modou yàlla la yàgg yónni te ñu yàgg faa daje yàgg xéwloo xéwal yëm lay yónni ci barki Seexu Xaadim ñoom nag ñu bëgg leen a jox kàddu gi tuuti rek ñu leeral lan mooy diiwaanu ahlu xasaayid lan moo ko tax a jóg fan la seen liggéey jëm loolu moo tax ñu bëgg jël kàddu gi nii seen liggéey bu yaatu nag ak bari gox yu ñu war a teew moo tax ñu jël kàddu heure bi waaye na nañoo xaar ba ca kanam kanam waaye ñëpp xam na ne jamono ji fii mu toll bis yi dajaloo yi bari na lool te fenn fu ne am nañ ndigal teew fa ngir jot li fa ngir yaatal liggéey bi Sëñ Tuubaa bi di yoon wax la ko say sëñ Mamad dafa wax ne nañu jox kàddu gi Sëriñ Cheikh Dieng mi nga xam ne mooy jëwri ñi jii féete ji Touba te nekkal fi waa diwaan wax loxo saay jëpp kon sëriñ Cheikh bisimilah aouzu billahi min shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi tàmbalee suñuy kàddu ci ñaanal Cheikh Ahmadou Mountakha sunu borom yàggal ko fi lool te may ko te yàggal fi mboolem njabootu Sëriñ Tuubaa gépp te loolu ñëpp ci biir di jotali ay kàddu yu gàtt rekk yu bàyyi ci sunu jëwriñ yi toog kàddu yooyu bàyyi ko ci seen jëwriñ ci kaw te jiite liggéey bi mu mel ne dañuy ubbi rekk waaye bu noppee danañ wéel kàddu yi ci yéen kilifa yi ci jotaay bi kaddu gi ñuy yëkkati nag mënees naa wax ne mënees na ko yëkkati ci kaddu sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Suhayb ndax diwaan bi di ahlu xasiida te nga xam ne moo lëkkale mbooleem ñu yor jukki ci xasiida yi loolu nag bu ma ko tuddee ñi def bési xasiida ak ñi defi ngont ñépp a ngi ci biir ndax dañuy wax ne diwaan bi moo lëkkale mboolem ku yorub jukki waaye bi ñu lëkkaloo ba noppi it nag dañoo jël sëriñ Amsatu def ko muy seen jëwri ci biir liggéey boobu it nag mu jëlaat sëriñ Aliou Diop def ko mu jiwri liggéey bi ah sëriñ Aliou Diop nag amoon yéene lool ci jotaay bii buñ koy def mu ñëw ànd ko ak ñun waaye téqi-téqi jamono ji tax na teewut waaye mel ne teew na ngir ñii teew ci jotaay bi mën nañ ko teewale loola moo tax teewul ñuy fàttali ne diwaanu ahlu xasida liggéey la bu yaatu boo xam ne du jaagee ni fii rekk lañuy ñuy teew sëriñ Mamar Diop mii toog te jóge njaareem bokk ci jiwri li nga xam ne ñooy saytu bi su xasida bu njaareem bari ki démb rek la jóge Guinée Bissau bisu xasida bu gën Guinée Bissau bi ñu doon def bari ki démb la fa jóge daal ñëwaat jawal sa fi ci bis bii loolu nag li ma ci jubloo leeral rek mooy yaatuwaay boo xam ne diwaan bi yaatu na ko ci réew mi ak bitim réew fépp foo xam ne dañ koy def bisu bisu xasida daañu fexe ba lu gàtt gàtt am ñu nu fa teewal loolu nag jàpp naa liggéey bu rëy la seenub liggéey yaatu na ba ci xam ngeen ne waajtaayu màggal Poroxaan gii nuy dëgmal baaxoo waa nañ saa buñ ci daan àgg adde yi nga xam ne daan nañ ko dajale foofu lañ ko daan jébbale Cheikh Ahmadou Mountakha waaye xam ngeen ne at yi weesu ak xew-xew yi fi xewoon taxoon na adde jooju ñu daan bàyyi ba magal gi weesu ñu gën a jëkkandikuwaat bu baax a baax fu sëriñ bi nekk rek ñu fekk fa jébal ko adde yi loolu di liggéey bu rëy rëy boo xam ne liñ ci mujjoon a jébb la ci at mi nu génn tolloon na ci téeméeri million ak benn loolu nag defe naa ne liggéey bu rëy rëy la boo xam ne diwaan ñu ngi koy taxawu lëkkaloo gi ba doon benn dafa am njëriñ lool ndax mën naa ne ba ñu xasoo booloo ba doon benn waaye fal na liggéey bi ci lépp loo xam ne sëriñ bi mu ngi koy santaane. bu ko ñenn yigee rek mbooloo mépp dañ koy daal di te loola dafay mel ne bu doon mbooloo doon benn amut manoon naa tax fenn fu ne danga fay woote waaye liggéey bi fu ñu ko soxlaa su dee ci njaareema bu ñu woowee sëñ Mamar Diop ña fa nekk ñëpp mu dajale leen te du jar waa Touba di jóg su dee fii ci Touba it bu ñu woowee sëñ Cheikh Touré ñi fi nekk ñëpp mu woo leen ñu xam ne liggéey bi benn la ñu àndandoo ko liggéey bi lépp sotti noonu lañ ko defee ci régions yi ci Sénégal yëpp ba foo ci xam ne rek ndigal tabbi na fa ña fa nekk danañ ko mën a wéer kon loolu rek waroon naa doy sëkk ci ñu fexe ba taxawal liggéey bi lépp doon benn li ci mooy ñu xam ne loolu beddiwuñ ci kenn liggéey bu yaatu la boo xam ne kii durus mu ngi ci biir kii rajas mi ngi ci biir kii def njàngum aw mi ngi ci biir amul kenn kuñ ci génne daara yëpp ñu ngi ci biir liggéey boobu ndax bu ñu xasee wax ne ku yorub jukki yaa ngi ci biir liggéey bi loolu matale na kon nag ñu ngi ci woo mboolem ñi nga xam ne ñëpp ñi ngi dégg liggéey bi te xamaguñ liggéey ba na mu demee nañu xam ne liggéey bi daal dara tax koo jóg lu liggéey bi Sëñ Tuubaa fas yéene lëkkaloo doon benn di yëkkateeloo di tegandoo tàbbi gi jëfewut ndax saxal nañ mbooloo moo xam ne ñoom ñooy saytu liggéey bi ci képp koo xam ne ku ci jaare ci ñoom la moo xam sa bunt day ci diwaanu ahlu xasida day day ci ahlu xasida gii tey ñu nekk soo fa jaaree da da daa da ngay tay tàbbi ci biir liggéey bi noonu la wéyee ci mboolem ñu ne ci liggéey bi ñëpp kon tàbbi ci jëfewul la nga xam ne mooy yaxaral addiya ji it loola it moo xam nit ko am fukki dërëm di ko ci def wala ko am téeméer di ko ci def lu ci waay def rek ñu tabal la ko ci biir liggéey bi kon tàbbi ci liggéey bi yomb na ci wet googu fexe tàggatu it ba nun ñëpp nu muur ci xasida yi loola jàpp naa ne liggéey bu amoon solo la ndaje mi ñu mujj def te amaloon ko ci lu yàggul fii ci Touba dafa am kàddu yu am solo yu sëriñ bi yëbbanti woon ci jotaay ba muy kàddu yoo xam ne yu mat di fàttali la muy xam nañ ne xasida yi moom nun ñëpp noo ngi ci noo ngi ci góorgóorlu it waaye waxoon na ne nañuy gën a góorgóorlu ci sellal ndax kat danañ tax nu gën cee mën a jariñoo kon selal googi nag ginnaaw sëriñ bi mi ngi koy fàttali ci liggéey bi noonu ñu ci nekk ñëpp it bu ñu toog war nañ ko fàttali kon nag nañ ci gën a góorgóorlu bu baax a baax ñu ngi gën a doolee sant bu baax ñi nga xam ne tey ñoo di bis xasida bii di waa ahlu xasida seen taxawaay rafet na lool ci biir diiwaan bi mboolem lu ñuy santaane ci liggéey bi ñu ngi koy seedeel ñu fi teewu ñëpp kenn mënu leen ci ay jàmbaar lañ ci ci xalaat ci addiya ak lépp la doxal liggéey bi ñoom ñi dee jàmbaar lañ ci lool te ni ma ko mën a seedee kenn ko joxoon kàddu ku ne ci mbooloo mu ñu séqal liggéey mën na ko seede kon nag ñu ngi leen di sant bu baax ci seeni taxawaay ah, di ñaan liggéey bii liñ ci def lépp yàlla na ko yàlla nangu ci barku sëriñ bi ñi ngi sant di gërëm dañuy bàyyee kàddu gi ak sëñ Saliou Fall mu jóge ba jaaree moom it bokk ci jëwriñu liggéey bi bu ko defee mu yëkkati ci kaw. ñu ngi sant yàlla bu baax tey julli ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam. di jaajëfal nag it maam Cheikh Ibrahima Fall mii suñu bunt ci Cheikhuna Cheikh Ahmadul Khadim suñu yaakaar yu tey ak suñu yaakaar yi ëllëg mu mel ni kàddu bu yemoon ci jëwriñ rek daf doon matale waaye waa Touba ñoo mel noonu ndax ñoo ëmb lépp. kon liñ ci doon am ci kàddu yiñ ci dolli rek mooy liggéey bii nga xam ne yàlla dogal na ñu nekk ci ba noppi di ci woote ñu ngi ko tàmbale woon ca Serigne Sidi Mokhtar mu ne woon yéen ñi yëngu ci xasida kat laaju ma leen ay addiya xanaa lii ngeen ma jox dama koy barkeeloo mu mel ne barke boobu nag moo topp waa ahlu xasida ba tax na liggéey bi di wéy ba bi sëñ Touba. sëñ Muntaxa ñëwee samp université bi suñuy jëriñ sëñ Amsatu Mbàkke xaadim rasul ne dañuy def at mu jot ñu barkeelu ci université bi waaye dama leen ko dagal ay pàcc at mu jot ngeen andi aje ñu boole ko def ko sëñ Muntaxa mu def ko ci at ci université bi kon waa ahlu xasida tawféex jooju ñu am lañ bëgg a bokk ak mbooloo mi nga xam ne ahlu xasida buñ ko waxee rek ñëpp murit yëpp a ngi ci biir ndax amul kenn koo mën a gondi ci xasida kon nag woote boobu ñuy woote defe naa buñ ko yëkkatee fii ci njenne ñu bari man koo nangu ndax suñu kilifa suñu waajur suñu yaakaari tey ak suñu yaakaar ëllëg muy sëñ Issa Diène kenn ku ne xam ne sëriñ sëriñ bi fi mu ko tegoon ak ni ko joxe woon xasida gi ñu mën a tudd tudd ca genn gu naan tay siran asir kon nag bu ñu leen wooyee yéen waa njenne ci ak ahlu xasida ci adde yi nga xam ne mi ngi jëm ci sëriñ Touba kenn ku ne war naa ma jóg war naa ma jóg barkeelu ci andi addi yi tegal ko fii addi jooju ñu leen di laaj nag pour ngeen teg ko fii ci taabal ji addi jooju addi waa ahlu xasida waa ngeen ne ñii lay doon ndax dañ cee amu sas ni ci waa Njaareem amee sas waa Kaolack amee ko Thiès ba muy fukki régions yi ak ñaar ñi nga xam ne itam ñoo nekk bitim réew dañoo lënkalu ci génn buum ñoom itam yor seen biisu xasida yoo xam ne dañuy dajal seen addiye di sob si ci seen am sax addiya jooju ñu laaj fii nag dañ koy dajale suñ ko dajalee waa ngeen na lañ koy bàyyee ñu def ko ci seenu sas ba bu ëllëgee bu njaarim jógee kaw lax jóg kenn du leen ca man kon nag ku ci saw ñaq dem na la leer ne sa xaalis dugg na ci addiya sëñ am sa te lu dugg ci addiya sëñ am sa dugg na ci xasaay te dugg ci xasaay dugg ci sëñ sëñ Muntaxa Mbakke kon liggéey baa ngi nii ñu leen ciy woo yéen ñëpp ñu xaman nag at mu jot nii lañ koy defee di ko ànd ak ahlu xasida yëpp muy ay jëwriñ yoo xam ne dañoo nekk leen ci tool bi régions yi nekk Sénégal yëpp dañ koy wër bitim réew dañ cay dem di ñëw di bokk ak yéen liggéey bi kon nag liggéey baa ngi noonu ñu tàmbali woon ci bisimilahi rahmaani rahim ñu fas yéene koo safal yëg nga sëñ am sa liggéeyam dafa bàyyiwul dara ndax daf ne maam Cheikh Ibra bu daan joxe addee da koy jële ab lim ba tax na mu jëloon téeméeri million ak benn mu mu di limu ik fi téeméeri millions yi ak benn da ko lëkkali ak li mu Ecfini su ko defee moom la jël ren ñu joxe woon ko noonu ba passé ñu war koo waajalaat déwén kenn xamul nag ban lim lay laajaat ak ban lim lay joxe waaye murit yokk lañ ko xam xamuñu ko dellu ginnaaw kon nag téeméeri million ak benn lañ joxe daaw kon ren ñu ngi koy waajal incha allah kon nag ñu ñaan ci barke waa Njende yàlla nañu am lu ëpp lool ci barke Serigne Issa Diène wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu addi indi addi maam Cheikh Issa dangay jóg indi ko sa bopp waxu yóbbante kenn de boo yoru sax jógal taxaw ba mu kii nga toogaat daf ko addee maam Cheikh Issa Dieng jar na ko suñ mën taxaawoo ënglu xasida yi ba nu ñëw mu ne leen li may njëkk liggéeyal université sëñ Touba bii yéena ko ci def jàngloo ñu juróom-ñaar fukki nooru daari juróom juróom ak juróom moom lañ tegee xeeru université bi sëñ Tuubaa bii addiyi jooju nag ñun joxe woon nañ ci fanweeri million ak juróom-ñaar ku ca bëgg a bokk jógal la nga yor nga ñëw ñu def fii loolu la wax de ah a ah. ñii de ku raw déwénati te yàlla nañ fi yàlla dimbali ban fekk déwén waaw ñëwal loo loo loo yor rek idil ñii moom nanguwunu kenn waaw ko defee waa wi ñu wëy àndanteeg yéen ci reportage bés bu am solo bi nga xamante ni waa daayira Ahlu Xasida ñoo ngi koy amal ñu nekk fii nag ci waañ wi ñëw fekk fi góor yàlla yi ak soxna yi nga xamante ni ñooy xidma ci lépp lu jëm ci wàllu bernde yi ñu jàkkaarloo ki nga xam ne nag euh, mooy ñu waañ wi di sëñ Maam Modou Guèye su ko defee moom la ñuy jox kàddu gi sëñ bi euh, bés bi ni ngeen ko waajale ak fi ngeen toll ak li nga xamante ni moom ngeen nam euh, berndeele mbokki taalibe yi aouzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sayidina muhammad alayhi salaatu wasalaam mbokki jullit yi mbokki taalibe yi euh, ñu ngi leen ziar baax a baax rawatuna waa Tuuba istiqaama noo ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala télé bi suñ borom yokk ko ca kaw a kaw a kaw ba àgg fu kawe seen jot ci bi yaay na bi rasul xam naa damay daal di tënk su ko defee dinañ jox euh, sëñ Mourine bay ak soxna Thiamata ñu àggal li ci des ndax xitma bi dañ ci tol nii carrément léegi sant ak nanu gërëmante nanu baax a baax a baax li nga laaj itam mën nañ la cee tontu bu ko defee soxna yi dinañ ko àggale ak góor yàlla yi eh, bis bi taxaw nañ ko suñ kemtalaay kàttan eh, ci népp lu nuñ jàpp ni na la waree ak ndigalul ñi nga xam ne ñoom lañ ko àndal itam di ko xitma muy waa ahlul xasida ahlul xasida nag suñ ko waxee kuy dul xasida rek ci nga bokk mboolem ku koy wëlbati rek ci nga bokk daayira mu waaye bu naafiwu ñu ngi ko ànd ak ñoom ak mboolem daayira boo xam ni eh, xitma la ci biir Euh, ànd koog ñoom fas yéene koo àggale ci tàmbali nañ ko ci bisimilahi rahmaani rahim fas yéene koo àggale ci alhamdulilahi rabil alamin yaakaar naa ngoon gi li ci des bariwul te journée lañ wax su defee nag la cay des ca kanam ñu nekkaat ci wàññi ba euh, xitmay ngoon ya sëriñ Amsatu Mbàkke ñëw ñaanal nu nu yeewi ko kon li ci des daal sëñ bi dañ koy tënk foofu da ci xitma jox soxna yi ñu àggale li des wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh di wax mbooloo mi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh di ñaanal sëriñ Mouhamadul Muntaxa yàlla na fi yàgg ak sëriñ Mourtala Mbacke moom sëriñ Fallou sëñ Moussa ni ko sëñ bi waxee rek noonu la demee ah, mel na ni image yi ku ko seetaan da nga dégg ñu ni sëñ Touba daa woote woon ni bisu màggal gi bu ñëwetee nan mooy ñëpp daje santale ma yàlla ñu am yëg ba yëg-yëg bu toll nag moom lam ñu defal ñun te mënul ko suñ bopp suñu lay mënul ko suñu bàyyi mënul ko moomul moo tax ñu wëlati ko waat woote bis bu toll nii ngir sant ko moom ngir lim na defal te mënu te mu te te mu ci ñun lool loolu moo waral woote bi woote bi nag li ci li ci jiitu mooy jàng alxuraan ak xasida ak bernde lépp it nag ñu ngi ci sàkku ngërmul sëñ Tuubaa di ci liggéeyal sëñ Tuubaa it nag moo tax ñu daje woote bis bi toll nii bërki démb démb ci démb ci ngoon la woon ngont maam Cheikh Ibrahima Fall defar nañ fi ay bernde yu takku jàng fi ay xasida si tuut yëkka fi tuur yàlla ubbeeku bunt bi tey di bisub sëñ Tuubaa bi def nañ fi ay bernde yu takk yoo xam ni comme ni nga ko waxee ñu ngi nii di ko bëgg a sotal ngir jox ko murid sëñ Tuubaa yi ngir di ci sàkku ngërëmul sëñ Tuubaa loolu rek moo waral bis bi mu mel ni wax ji du mën a gudd ndax dana toll ci bëgg a dënale waaye moom daal ngërëmul sëñ Tuubaa lañuy sàkku sëñ Moussa di ko xool nag fi nga xam ni moo gën a gaaw muy buntub togg ay ñam di joxe fi Cheikh Rafa rayool ñëpp ñu dàkk buntu boobu di ci sàkku ngërëmul sëñ Tuubaa kon daal ñoo xam ne moom ñu ngi fii ci bis bi tey xasida bi di waajal ngërëmul sëñ Touba rek la ñuy sàkku ngir jëmmi sëñ Touba xam naa li des ci kàddu jox soxna caamatal bi mu yeggal ko tax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu waa xanaa ñu santaat Serigne Touba rek santaat Serigne Touba bu baax a baax baax a baax tey ànd ak mbégte te naan alhamdulilahi rabil alamina jërëjëfati seexu naa xayrul xaddim jaaraam maam Cheikh Rahma Fall moom yàgg nañ ko taxaw yàgg nañ koo taxawee waaye yokkute rek ak ndam lañ ci gis ndax euh, Serigne Touba ku ko ku ko lebal rek dalay fay ci saasi ñu ngi koy gis ci suñu bopp gis ko ci sunuy jëmm gis ko ci sunuy njaboot kon ñuy ñaan ci kàttanu yàlla ak yonent bi lii sax neex na lool barke Serigne Fallou Mbacke dara manqué wul nag dara manqué wul lépp loo xam ne rek war nañ ko financé murid di financé nañ ko ba mu sëkk ànd ceeg mbégte ànd ceeg lépp barke sëriñ Fallou Mbacke kon ñuy ñaan. yàlla saxal liggéey bi daal yéen tamit waa télévision bi ñu ngi leen di sant ndax ban commencé ba na nga ni ngeen ñun at mu jot nag nii ngeen di def kon ñu leen di ñaanal yokkute ndam rek waaw sant nañ ñëpp daal kontaan lañ def ba xamuñu lu ñuy wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba asalaamaaleykum ñoo ngi leen nuyu baax di leen siyaare ni ko ñëpp waxee rek bis bi bis la boo xam ne bisub sant sëriñ Touba la ndax Serigne Touba lim defal dafa ndax Serigne Touba dafa wax ne yonente bi dafa tànn ba noppi mu tànn ci biir tànnee fi yonente bi kon képp ku bokk Serigne Touba rek amel nga ko ak cant amel nga ko njukkal looloo waral bis bi at mu jot mu de ñu di ko waajal di ko waajale bu ñu xëyee jàng ay jàng alxuraan jàng xasaayit def ay bernde di ko sant Serigne Touba di ko royee ci maam Cheikh Ibrahima Fall Baol diina kon nag loolu rek mooy mooy waral bis bi ndax Serigne Touba ñun taal bi amuñu payam xëy di ko di ko sant rek te luñ sant lottu ca sant ka rek loolu lañ ko mën a faye waaye ko koo fayale nag kon nag ñoo ngi siyaare ñëpp dañ ñaan képp ku fi teew yan na la suñu borom guddal saw fan wéral say cër ñu yàgg koo teewe yàgg ko def te lépp luñ fi liggéey yal nañ ko sëriñ Touba nangul bi jaay Rasulullah ñoo ngi sant nag jëwri ni ahlul xasida ndax bis bi fu mu toll àgg rek ñoo ko fa àggale ndax ñoom ay jàmbaar lañ ay jàmbaar lañ ñoo tax bis bi ak kon ñoo ngi sant mboolem jëwri ni di sant mboolem ku bokk ci ahlul di leen sant yéen waa rajo bii ndax at mu jot mu ne ñoo a koy ànd kon ñoo ngi leen di sant dañ ñaan yàgg ko tewe ko fekke te aaju ji ah, ku fi indi aaju yàlla na ko suñu borom saafari barke Sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf mbokk yi ba tey ñu wëy ànd ak yéen ci reportage yi nga xam ñu ngi koy wëyal ci bés bu am solo bi nga xamante ni waa ahlu xasida dañoo ngi koy def waaye nag ñu ngi jàkkaarloo daayira bi nga xam ni ñooy ahlu xidma ñoom tamit nekk ci koñ bi ci Touba Ndiéné euh, ñu fës yéene jox kàddu gi Serigne Sidi Diagne mu yëkkati ay kàddu ci turu mbooleem daayira bi seen ànd ak daayira bi ak taxawaay bi ak organisation bi nga xam ne nekk ngeen ko boobaak léegi ak taxawaay bi nga xam ne daayira bi tam dañ ko am ci koñ bi ak liggéey yi nga xam ni moom la ñuy defal ku tedd gi di Serigne Touba Khadim Rasoul. mboolem waa ahlu xasida yëpp ñu ngi leen di siyaare di jiital ci siyaare bi seen jëwrin muy Serigne euh, Alsane ak mboolem ñu topp ci ginnaawam muy Serigne Omar Ndiaye ak mag ñu baax ñooñu ndax euh, boo xoolee ñun suñ taxawaay ci liggéey bi mooy waa Xidmatul Xadim noo ndekk ay ndaw yoo xam ni ñoom ci ñoom mag ñooñu ñoon ñu tàggat dugal na ci liggéey bi jàngal na ko moo taxit ñooy ñu ñu daal di formé wu ci loolu ba tax na tey buñ ginnaaw bi nga xamee ni euh, dëgër nañ ci ci ci loolu euh, moo tax ñu mën a mën a mën a am euh, ak organisé wu ci bis bii ndax boo xoolee bis bi ku ci ku ne xam na ni ñun fajar lañ fi ñëwoon ngir lu jëm ci wàllum ndekki yeeg yu mel noonu yëpp ñoo ko toppatoo ñu ngi nii it ci añ yi euh, gis nga waaxin ma ñoo sol yu bula yi ñoomit ñoo koy séddale bu noppeet xam naa mosuwaar yi nit ñi fompoo ak euh, raxasu yeeg napp yeeg yooyu yëpp ñoo koy toppatoo ak lépp loo xam ni dina ko soxlawoo ci ci set muy ci wàllu wane wa euh, ndox ma ak set setal ba ca war ak ci wàllum baas ba muy mbuus yeeg taq takk yi lépp lu ci war loolu waaxin matul xadim lañ ko dénk di ñaan suñu borom eh, yàggal leen fi ñu yàgg ko taxawee ñu yàgg ko ànd ak ñoom di ñaan suñu borom jëmalee bés bi ca kanam ñu taxawee ko ay ati at di leen ziare yéen ñi nga xam ni yéen a yéen a yor wàll gi ngeen xam ne muy wàllu communication bi gis nañ seen liggéey ci ci ci liggéey bi gis nañ di ngeen ci taxawee di ñaan suñu borom gën leen a dëgëral bu baax a baax a baax ba matériel bi gën a yokk yéen waa Istikhama ñu ngi leen di ziare. di leen di leen di leen di ñaanal bu baax a baax di ñaan suñu borom yokk leen. wa innaka laalaa xuluqin aziim wa shaktub rabbil arsi sil juudi wala fi maal Mustafa wallaahu lii muxlidun safi wa shaktu maal muxtaari billahi wa dawaa alaysa ma mun li xarma laxi wa xaani biswa wali kaana bil munaa wali xaade ixlaasan bi xarma sam wali tuxati man في امتداء محمدا عليه صلاة الله ما ساد للناوي ولدت خطيبا في امتداء وسلتي عليه السلام ملائي وليس فزي ولا كل سي علم وسعي ورغبة المساء خلق الحائز الحلو وجي مسرور وسرور شاب بواخنا ويلا عن قصر وسيم وواب وسي وسيلة إلى خير رب سكرو ختم علوي وفين كريم وائد ودوتا بلسان مالا سلدر بالراوي وللنبي للبرايا رسول من في نسوان ساقة سسلم وسلم ودادي لربي والمقفى وحزبي والحب والله لي كان بلا في وشغل بباقي شرطة النوم خدم الخير الخلق بالمكس والصفي روم ردا من كل يدار يكلو لا ساب من خدا ويمنو إلى إرد أنسبي نبي خايدا لهم سرور متى ينتخ بمتى مدرو أي بات يداريني سبنا فابين إلهي لخيري كل من ليس برو بلا إلى كله سيد البين وخبرق الكفار هو الكل جسو أسود الأداوة مسبي في الدجا وكل سجا أمره سنكريسو أسود متي ياسد لوم زوت جروين يابا جبان يبكي وما تجري يا خادم المختار لا تنسى صبا فمن ينصف المتو متو وقتو أبا بكير صديق سوسة الوفاء رفيق نبي المصطفى خارن مو أبو سلفروق سواء ناتيو بيت سجيل مصطفى الدحسو أبي سلمان دانا أفمن سأيا لو نور سم النور نعم مبيو أبا فتي مختاري أمني علي رافق تيرا نهم المجرم أصحب رسول الله إني خديمه ويبنكم في الله ولا يقلو يا من خيل وكان حقا علينا نشر المؤمنين يا من خال وكان حقا علينا نصر المؤمنين يا من خال وكان حقا علينا نصر المؤمنين بارك بسر إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وإجاد كل بأمن وسلطان إلى ولي المؤمنين والشكر كل يا ولي يا خدير يا نسير للمؤمنين إنك الهادي البصير أستفارا لشوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا زشمن أستفارا لشوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا السمن وصرت فورا مشوانا كل من ليس يكون مشرا يا ذا الزمن ما فاتنا بأفضل الإيمان فيتنفي الجميع بالأمان وبالسلام وبالإسلام فلتعفج الكل عن الملام خدمت السيد البراء يا أحمد من لم يحبده إلى نبي خد صلاة وسلام والأنبياء ورسل ونزل الكلام على نبي محمد ولآله صل وسلم وسلم سؤالي والمنتقى ما يجور بلا نهاية وخدمتي تقبلت سيد المرسلين صلى الله على رسول الله Sarah! وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما إنما أحمال بالنيات بركة برمتوا إن خلامي والمداد والجزد هند اليداء مخجلة كل عذاب نفحني الله لدى لبر وليه بما بي يغبطني كل ولي نفعني الله بأهل البدر بما نفى عن الهدى والخدر مد لي القار في عرمرمي مخجل كل مخرج ومجرمي أصب ربي عند رجل آذان وسر جنده لسي من انتظار إذا كتبت تدارس الملك وفر من درية كل ملك للمنتقى وصلت عند الباري ما قال لي فيدا خداك بحري أوصلت للماء لدى من كبر مخجل من قد كفر والنفر هل يمن الله بانصرافي من سلم نيما ترافي من علي الله بانصرافي من زيده عند سوي انحراف أكرمني بسر الخيب من قادني بعلم الوهب المرتدى وصلت مرتداه لوجه من أردى بما خداه بابقتي عباد الله الصالحين اللهم في الله ألهمني في البحر مخزي كافرين ما خاد لي بي أجور الذاكرين لقد تبين لدى الكفار كوني عبد الله في أصباري أفاهم الواحد والقهار والكل منهم سب وانقهار يبغو من غير نحوي أبدا مغنك عن القرآن أن يعبدا يلقاد لي سغيد والمردي بفضل من إسلام وردي أصب أن الله عيب نفسي وكل ما يجرني لعبسي ترتيبي تفسير وتقديسا هزمني ممن وهو دوسا من لا يرى أحمدنا خير الورى فذو زقاء قلبه ما نورا حامدنا نسيره ليس يرى هود وقت في البرايا لم يرى رحمتنا المغداة فاق البصر والجن والملك جاء منبذرا ربي عدو تجارة قد تجرا بحب سافي أدام الفجرا من سن أنه رأى أو سيرا نزير أحمد فقد تغيرا يالله يا غليم أنت الله ويا خبير ما له الأسباب هب لي من لدنك ما نحب يا من له أمور أن ترب وحافنا والتبنا ونجنا والتكفنا وكلنا يا ربنا بحرمة الهادي عليه الصلاة وسلما في ذهبه وكلها رفقت أمداك مدة سنين لمن به للخادة أنفع الفنان بركة المختار عبد الكون قديمه وهو نور الكون يمدأه القديم بالعادات وبعث فيها بمناسدات علمني بديع أن المنتظر في السر والجار ألا سمتقى أحمدنا المختار لم يدعى في الجود والبعث ولن يدعى لأحمد المختار سبق كتبا في له القلم وهو انكتبا أول من يقرأ باب الجنة أحمدنا المختار معيتنا أول من يقرأ باب الجنة boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu bind abonné bu leen fàtte bës fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo